pour les étrangers pour les puissances étrangères duñ la ko baal duñ ko annuler parce que ñëpp ñëpp mais adduna bi yëpp seen sikkim a ngi lakk ñu bëgg a yow ñëw ñëw taxaw ne dañ lay fayal si sikkim man sama sikkim di lakk xamaguma su ma ma mujjee may ñëw naan la maa ngi régler sa problème France moo koy def Allemagne moo koy def États-Unis moo koy def wala kenn du ko def duñ nekk nii dette bi dañ ko fi bàyyi parce que dette bi mooy épée de Damoclès. si nañ lay mën a pour mën a continuer BRT bi pour mën a gérer autoroute à péage bi pour mën a gérer sa sa say ressources yi fi nekk ak yeneen ak yeneen il faut ñu conserver dette bi bu du woon loolu kon ñu baal ko mais duñ ko def par stratégie duñ ko def de waxuñu nag ne suba mënuñu la ko mënuñu la ko baal mënuñu la ko baal bu fekkee ne ñoom seen situation baax na mais seen situation bu baaxul duñ la ko baal dañ koy conserver dama la seetaan démb essentiel seetaan naa la macha allah des médias yéen léegi chaque jour te nee na bu nekkee essentiel lay gën a rafet gën a ràññ xaw ma lu tax quoi wala buy ñëw nu melaan day sonn ak seen restez chez vous bi restez chez vraiment c'est c'est exceptionnel quoi koy seetaan c'est macha allah yàlla bu leen ca dugg ñuy wax ne war nañu mën a commencer di jàngal xale yi e-learning si la la la si e-learning apprendre à la maison apprendre à la maison professeur dañ ko ciy invité si yeneen télé mhm. il a fallu hier ngeen wax ko ñu ñu ñu interpellé ngeen leen est-ce que ngeen vers nous. c'est ça le malheur. voilà tu vas vers des d'autres télévisions alors qu'il y une télévision qui est suivie tous les jours doo ñëw si ñoom. c'est ça cette discrimination médiatique c'est quoi <laughs> alors que yow kii chaîne de télévision lu moom ci yow xam nga ne c'est une chaîne majeure dans ce mm-hmm. pays. leader. c'est comme ça que ça se passe dans tous les secteurs et pourtant vous avez remis 11 millions. amul loon fi def fii ci Sénégal lu ñuy def te boolewul leen ci wala dugal leen ci même bu doon fukki dërëm la mais fukki dërëm dina gën million mm. sa fukki dërëm mën leen a jik indil la ay milliards et milliards vous l'avez fait ñoom Serigne ils ont remis de l'argent mm. d'autres ont remis de l'argent uniquement pour l'intérêt du peuple sénégalais mais xam nga la ñun suñu bopp y a un de volonté mm. mm-hmm. de la part de nos dirigeants la préférence nationale la waxoon au détriment de la préférence étrangère c'est-à-dire il faudrait que tey ñu am des leaders forts xam nga li li li kii waxoon l' ancien président euh, américain là c' est pas ça qui est important des institutions fortes on peut l'avoir mais on n'a pas d'hommes forts mm-hmm. des gens qui savent dire non mm-hmm. lu ñu leen wax ñu nangu ko te loolu est-ce que amul ay nit tamit yoo xam ne boo toogee ñooy teg ci yow pression boo xam ne li nga waxoon lépp da nga naan nu ma koy defee non non non ah? moo tax ma la